rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli bokki téléspectateur bu Grand Yoff TV fii ci biir réew mi ak ci bitim réew assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baal xaq di leen baalu xaq di ñaan sunu boroom subhaanahu wa ta'ala mu boole ñoo jéggal yal ñu yàlla nangul sunuy jaamu yàlla suñ ko defee ci anam bi mu ko bëggee moom yàlla yal nañu ko yàlla nangul suñ ko defulee ci boobu anam yi itam yal nañu ko yàlla nangul ci mbaaxam yal na yàlla boole sunuy jaamu yépp ci jaamu yi nangu moom yàlla yal na yàlla ubbi wërsëg yi yokk sutura gi yal na yàlla barkeel ñu barkeeleel ñu yal na yàlla barkeel suñuy liggéey barkeel suñuy njaboot su njaboot gi barkeelee yal na ñu yàlla may gudd fan ba ñu fekk seeni njëriñ ñi nekk ci xat-xat yal na leen ci yàlla génnee ñi am jafe-jafe yal na ko yàlla teg ci mbaaxam yal na ñu yàlla may gudd fan bi ànd ak wér ak mujj gu rafet suturaal ñu àddina suturaal ñu àlaaxira barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi bu loolu wéyee dañuy ñëw beral nuyoo kilifa kër gi di imaam xalifa baabu ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yal na ko yàlla taxaw dëgëral ko ba li mu mu mën koo eggil ak sagoom dara bañ koo gàllankoor waaye tam fa la jaar nuyu suñu xarit suñu soppee oustaz Omar Ndiaye muy oustaasu kër gi moom it ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara kazalika bokk yi ñu ngi nuyoo kilifa diine yépp ci biir réew mi ñu ngi di ñaanal di sàkku ñoom ñaan bu loolu wéyee nag bokk yi dañuy ñëw ak yéen ci seen émission xam diine muy émission bi ngeen di am ajuma ju nekk ci waxtu wi te ngeen ci ànd ak euh, seen mbokk seen xarit seen soppe imaam Ibrahima Fane ba léegi rek mbokk yi ñu ngi ci buntu boobu ñu nekkoon moo di baabu ziwaaj muy buntub sëy tey nag ñu ngi toll ci wàllu ba léegi rek ci wàllu ngoro al udul anil xitba tey mooy nekk waxtaan wi maanaam dugg ci ngóor ba pare joxe sa kàddu dellu ginnaaw ba yàgg nga dellu ginnaaw moo xam ci côté ku góor ki wala côté ku jigéen ki loolu lan moo di atteb sariya ci loolu mbokk yi du dagan ci wala warul ab jullit moo dugg ci ngoro ba joxe baatam mu dem mu ñew delo ginaaw ci luddul sabab bo xamantene man nañ koo layal sharia kenn waru dugg ci ngoro dem gis xale bu jigeen ko waxtaan rek mom mu nangul la nga dem ci ay bokkam ay kilifam ñu jox la seeni seeni baat ne dañ lañ la may nga dem bi ci biir nga delo ginaaw ci luddul ngant mo xamantene man nañ koo layal ci sharia loolu bokk yi du wér ci lislaam lislaam da koy tere ndaxte loolu dafay loo xamante ne dafay nekk maanaam fecc couleur lay nekk wala bokk diggee loo xamante ne jëfewoo ko te loolu da di benn mila misaal ci missaalu naafiq da di benn meloo ci melob naafiq يونتي بي صلى الله عليه وسلم دفو واخني اربعه من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا اؤتمن خان واذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا آهد غدر رواه البخاري ومسلم يونتي بي نانا مو ني نيانت ني mu ne ñeent yii ci que mu nekk kooku moom naafiq bu pare la mu ne waaye nag bu ci benn ci ñoom ci kum nekk tam am nga benn benn meloo ci melo naafiq nee na benn moo di isa utu xaan boo ko wóoloo rek mu war la boo ko wóoloo ci sa kàddu mu war la boo ko wóoloo ci sa alal mu war la ca boo ko wóoloo ci sa njaboot mu wor la ca loolu moom nee na képp ku ko meloo rek kooku moom dafa bokk ci meloom naafiq waaye wa iza hadasa kazaba fu mu waxtaanee rek wax lu ci gannaaw dégg maanaam fu fépp fu mu toog di waxtaan lépp li muy wax rek day nekk ay fen loolu itam meloon naafiq la ñetteel gi moo di wa wa ad axlafa bu diggee du ko matal bu diggee bu la diggee dara du ko matal bu la joxee rendez-vous da koy fausser koy loolu tam bokk yi eh, melo la ci melo naafiq surtout bi ñuy wax nii moom réew mi ñu nekk jàppewuñ ko muy dara fausser rendez wu ay ustaas yi sax ak te ñi ñuy tudd ay sëriñ dara sax ñoo ko ñoo ko fi gën a mën te loolu l'islam da koo tere te boo xoolee bu dee da tukki boo demee ci réew yi nga xam ne duñu ay jullit sax ñoo xamante ne nekkuñu ay jullit ñooñu dañoo fonk lool rendez-vous te lislaam moo war a bëgg ab jullit moo gën a jekk ci fonk rendez-vous respecté ko ndaxte suñu l'islam suñu diina ji loolu lañu jàngal moo de képp ku koy def rek di fausser rendez-vous benn melo la ci melo naafiq te defe naa kenn bëggul ñu tuddee la ne yow yow da nga am meru naafiq kon yonent bi ne na mu ne eh, boobu tam ci meru naafiq la bokk bu la diggee du ko matal waaye tam bu la joxee rendez-vous du ko respecté mu wa iza ahada gadar boo colorant ak moom mu fecc coloré ñeent yi yonent bi dana ci képp ko mu nekk rek yow am nga benn melo ci melo naafiq bu dajee ci yow nak yow mom nafiq bu mat nga waye bokk yi ibnu omar radiallahu anhuma abdullah ibn umar radiyallahu anhuma bi nga xamantene dem na be nek febar bi nga xamantene ci la génne adina dafa daldi wax ak ñiko ko mu ne leen unzuru fulanan لرجل من قريش فإني قلت له في ابنتي قولا كسبه العدة أي قولا يشبه الوعد وما أحب أن ألقى الله بسلوس النفاق يسير به قوله صلى الله عليه وسلم آيات المنافق الثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان وأشهدكم أني قد زوجته ابنتي وأشهدكم أني قد زوجته ابنتي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بيم ديمي بي نيك تي فيبر بيم غيني ادينا مو خامني موم دوتو جوك دا فا دال لي واخ نيكو وور مون لين خول لين واجي توك ديم بوكو سي وا قريش man day wax naa ko benn wax ci sama domb jigéen bi dafay nuru ne euh, la maanaam dama koo dig ne dama ko koy maye te nag bugguma tas yàlla subhaanahu wa taala ak euh, mocceb naafiq muy junju euh, wala bokk xaris bi nga xamante ne sàngi dafa wax ne mu ne meloon naafiq day ñetti la bu waxtaanee fen bu la diggee doo ko matal waaye tam boo ko wóoloo mu wor la mu ne nak man lima ko wax lima wax ak waji sama dombu jigen defa ni roone dama ko digne ko dama ko koy may te man buguma tassak sama borom ak moccam nafiq kon tay mag ngi sama dombu jigen bi mag ngi leen ne man sama walu bop maye naa ko sama dombu jigen bi mu tàkk defa soxna kon bokki du dagan ci ab jullit mu dem ci mbokk jullitam bu jigéen ngoro ko ñu juboo ñoom ñaar ba dem ci kilifa yi ñu jox ko seen seen kàddu ne nañ la ko may mu dem ba ci biir delloo ginnaaw ndax lan ndax rek xëy na gis na keneen ko ko gën a gën a rafet wala gis na keneen koo xamante ne moo ko ëpp xaalis moo ko ëpp alal wala bokk moo ko ëpp askan moo ko gën rëy askan loolu moom bokk yi lislaam da koy bañ yonent bi dafa teree lu mel noonu ndaxte loolu dafay dugg ci melum naafiq comme ni ñu ko waxee ci gannaaw léegi waaye naka noonu tam du wér ci ab jullit bu jigéen moom itam mu jox baatam góor ne nangu naa dinaa nangu si ak yow dañu egg ci kilifa yi dañu joxe seen baat moom mu dem ci ci bir mu dellu ginnaaw ndax lan xeyna gis na keneen ko xamantene mo upp ëpp wala bok gis na keneen ko xamantene mo upp daraja kon tam lol tam da fay dañ koy tere ku jigen ko aussi waru ko def ndax te ab julit mom tabarakallahu waadama waad mo war wara sàmm modi batam baatam wara ko ndax te yow kooku nga xamantene mom nga tan ki mu jé ñëw nga gis ne xeyna dafa am alal wala dafa am daraja yow ko jigen ki ba tax na nga war ki jikki ki yow xamone ko nga war xeyna ko lool moy moy yiwu ci yow moy sey bo bo ci digon moy sey bu am bi am barke té bu fekkante ne nit da la ñewal ko xamante ne nga diinem gërem nga jikkom ba jox ko sa wallahi boko bo ci duggee rek suñu borom dina ci def barke ta suñu borom dafa wax né mu wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun suratul baqara suñu borom né na ne amat na ngeen sib dara fekk lol modi li gën ci yeen waye tam amat na ngeen sopp dara bugu ko fekk loolu moom ab ay ci yéen mu ne yàlla xam yéen xamu leen kon kooku nga xamante ne mu war a jëkk a ñëwal ba nga jox ko sa kàddu bu dara tax nga dellu gannaaw tudduhul rek mu nekk loo xamante ne eh, lu ñu mën a nangu la ci sariya waaye tam suñu borom mu ngi ne mu ne fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa ja'ala allaha fihi xayran kasira mu ne su ngeen leen sibee mu ne amaat na ngeen sib dara suñu boroom ñëw def ca yiw ju bare bare ak barke kon du wër ci jullit moo xam bu góor bi wala bu jigéen bi mu joxe baatam ci wàllu ngoro mu dem ba ci biir mu deltu ginnaaw ndax benn sabab ci asbaabu àdduna yi maanaam eh, bu dee ku góor nga xëy na gis naa keneen ku ko gën a rafet te nangul na ma kon damay bàyyeekee bu dee ku jigéen la gis naa am naa keneen koo xamante ne moo ëpp kee alal wala moo ko ëpp daraja kon naa bàyyi ku jëkk ki jàpp ci ku mujj ki loolu mu en général képp ku ko defee rek na la leer na yooyu la sëy du am mujj mukk day itam même bu yàggee itam suñu borom ci def barke kon nañ ci bàyyi xel ndaxte suñu borom dafa bëggu ab jullit mu fonk kàdduum waaye itam mu nekk koo xamante ne ku déggu ndaxte déggu moom mooy lépp ci eh, muy baasu ngëm yàlla suñu borom dafa wax ne mu ne yaa ayuha allazina amanu ittaqullaha wa kunu maa sadiqin yaa ayuha allazina amanu ittaqullaha wa kunu maa sadiqin mu ne yéen yi gëm yàlla na ngeen ragal yàlla te ngeen ragal yàlla ànd ak way gëm yi di wax dëgg di nekk ku ñu ñu déggu te nag loolu moom ku déggu du ko du ko def tabarakallah kon ñu bàyyi ci xel l'islam dafa tere lu mel noonu waaye nag bu fekkante ne nag deltu ginaaw gi ci ñom ñaar ñëpp dafa am ben sabab ci asbab yi nga xamantene l'islam da koy nangu su boba dara du ci nek yau léegi yow ngay jigen xale bu jigen am ku ñew ngoro la te yow li nga xamant ci mom modi di ku bax la ku jub la ku jullite la ku am ku am jikko ju rafet la nga dem be ci bir a ah, nga gis ci loo xamante ne dafa woroo ak li nga foogoon ci moom waaye li tax nga bàyyi ko nekkul affaire àddina waaye comme ni yonent bi waxoon iza jaakum man tardawna diinuhu xuluquhu fa zawijuhu bu la ñëwalee koo xamante ne gërëm ngeen diineem ak jikkoom na ngeen ko may soxna boo dem ba ci biir nag balaa ngoor ak di sore nga gis ne kii kat amul diine waaye tam nekkul koo xamante ne eh, ku am jikko ju rafet la su yow mii ku jigéen ki wala say kilifa am nañ sañ-sañ deltu ginnaaw ci boobu le ngoro ndaxte nag kenn du jël sa doom bu jigéen yar ko yar bu rafet yar bu lislaam waaye def ci moom ay qualité jikko yu rafet nga jël ko may ko góor goo xamante ne tabaarakallahu au lieu que mu yokk ko yokkal ko diinam yokkal ko jikko ju rafet day dem yàq ko su ko loolu moom kenn du ko kenn war koo def kon bu dee ci kaa yu mel noonu Eh, deltu ginaaw waxuma la sax dara nekku ca mais lu war la kenn du jël sa dombu bu jigéen may ko ab kàccoor waaye tam naka noonu tam ku góor ki tam bu fekkente ne moom itam lu mel noonu moo tax mu dellu ginaaw ba léegi lislaam du ko wax dara du ko ŋàññi yow da ngaa dem gis benn xale bu jigéen ngeen gi sante buggante dem dem ba ci ay ay bokkam ay kilifaam nga ñaan ko ñu jox la seen kàddu waaye ci biir say gestu nga gis ne kii kat moom du ku baax amul jikko ju rafet waaye sax seen waa tam amuñu yarul islaam yaruñu seen doom yi ci yarul islaam su ko defee léegi boobu tam boo bokk yi nit mën na cee dellu ginnaaw doo ci am benn daan yàlla ndaxte tabaarakallaahu ah, li ñuy soxla ci ci jigéen li ci gën a am solo mooy sang bi sallallahu fas wasallam fasbir bi zaati diin taribat yadak ab jullit bu góor li mu gën a soxla ci jigéen li war a gën a li mu gën a war jël ci jigéen mooy ku am diine ndaxte boo amee diine rek tabaarakallaahu yeneen yi ñuy wax yëpp dafay daal di daje su boobaa nag kon boo ngoro xale bu jigéen nga dem ba ci biir gis ne kat ñii seen waa kër amuñu diine su ko defee kon am nga sañ-sañ dellu gannaaw dara du la ci fekk waaye suñu borom tam mu ne mu ne wa in yatafarraqa yugnillaahu kulla min saatihi wa kaana allaahu waasian hakiman mu ne su ngeen su ngeen tàqalee ko itam nag tabaarakallaahu ah kenn ku nekk suñu boroom mën na ko wërsëgal leneen li li ci moom yàlla moom ku yaatu la ku xarañ la kon du wér du dagaan ci ab jullit mu deltu ginnaaw ci ngoro lu duxul rek ci ngant yi nga xamante ne moom lañ wax waaye tam bu fekkante ne tam deltu ginnaaw gi am na ci benn sabab ci asbaab yi ndax li mu jotoon na joxe moom ku jugu góor ki da koy nangu ci sharia wala bok da ko koy da koy bàyyee xale bu jigéen bi li ñuy tuddee may bu jëkk wala premier cadeau bu fekkoon nga joxe ko nga dem ba ci biir nga dellu ci gannaaw ci ngoro gi wala kenn ci ñoom ñaar dellu gannaaw ndax li mu jotoon na joxe moom ku góor ki da koy nangu wala bu da koy bàyyee ak xale bu jigéen bi ci sharia bokk ci wàllu woowu nag moom fukaha yi dañ cee am wuute fukaha yi dañ cee wuute ci boobu le masala ñenn ñi nee na du dagan mukk mu delloo li nga xamante ne moom la joxe woon mu ne ndaxte loolu mu joxe maye la te kenn amul sañ-sañ maye ba pare di ko nangu ci lislaam mu ne parce que boo xasee ba maye li nga maye boo ko xasee ba maye ba may ko rek ba maye ko rek ki ko may léegi moom kooku lee moomeelam la mais du sa moomeel yow ñu su su boobaa kon du dagan du wér pour nga jëlaat ko ci moom waaye nag ñoom itam ñi wax ñu wax boobu ñu ngi sukkandiku ci hadis bi nga xamante ne yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa yaxilu li rajulin laa yaxilu rajulin an yuti atiyatan aw yahaba hibatan fa yarjaa fiha illa alwalidu fi ma yuti waladuhu sàngi fa ne mu ne du dagaan ci ab ci jullit wala bu du dagaan ci a ci nit mu joxe ab joxe wala mu maye ab maye ba noppi mu dellu ci ginnaaw mu ne lu dul rek diggante wayjur maanaam baay ak doom neen du dagan ci ab ci nit mu maye dara ba pare dellu si ginnaaw nee na ba mu des rek diggante baay ak doom li tax mu wax loolu baay ak doom ndaxte mën nga jël dara may ko sa doom waaye nag euh, mu dem nekk koo xamante ne du nangoo déglu say say say say ndigal du nangoo say ndigal boo ko buggee yar du nangu mu ne mel noo xamante ne buggoo noonu mën nga koo nanguwaat mu nekk zaaru yar mu nekk ci cadre yar mu xam ne kat ah sama baay kat boo gisee mu nangu li ma mayoon li ma bëgg ma lu mu bëgg ma mel ko noonu laa melul moo tax yonent bi nee na mu ne foofu kese la dagan diggante baay ak doom daal mën nga maye ba pare sa doom mu def noo xamante ne neexu la wala mu mel melokaan boo xam ne bëggoo woon mu meloon mu mel noonu nga nangu li nga xamante ne moom nga ko mayoon waaye à part ça l'islam du du nangu nga maye ba pare di ko nanguwaat waaye nag bokk yi bu dee ci wàllu sey nag fukaha yi ñeneen ñi dañ ne dafa wuute ndaxte ñu ne maye ñaar la maye ngir yàlla maanaam soxla woo xaaroo dara ci gannaaw maye ga ak maye goo xam ne danga koo maye soxla ci gannaaw maye ga dara te nag ñu ne nag ngoro nag moom boo koy def li nga fay maye dangaa soxla dara ci gannaaw maye ga maanaam bu dee may bu jëkk la bu li ñuy tuddee may bu jëkk wala li ñuy tuddee eh, premier cadeau yow dang ko joxé pour sey gi mëna mat dang dang ko joxé di xaar ci gënaawam nga sey ak nga ne nga joxé cadeau ga mom nga jox cadeau ga kon nak ñu né bu fekkante ne mom moom eh, gi matul su boba kon eh, delloo ma mo wara nek ma wara am ba tax na ci wo mom moom ñent ngir yépp kenn ku nek rek sa gis-gis dafa xaw wute ak sa moroom waaye ala kulli xaal ñoom kenn ku nekk gis na ne delloo ga war naa mën a nekk ak ci anam bi mu war a nekk bu dee ki nga xam ne moom moo di abu xanifata moom def ne ki nga xamante ne mooy ku góor ki am na sañ-sañ laaj li nga xamante ne moom la joxe woon bu fekkente ne li mu joxe ki ko jox maanaam euh, jaayagu ko bu dee xaalis la bu dee xaalis la jaayagul ko bu dee tam lu ñuy sol la yére la ñaawagu ko yor sol ko wala bu dee lekk la lekkagu ko ay demee noonu mu ne waaye nag bu fekkente ne nag li mu ko jox bi muy deltu ginnaaw ci ngoro gi fekk na ndaw si jaay na li lim ko joxoon na su boobaa kon perte na ko amul sañ-sañ laaj ko waaye tam sax du ko laaj pour mu fay ko ko loolu moo di ngiru Abu Hanifata am na nag nga xamante ne moom moo di imam Shafii moom def ne dañ ko koy delloo mutlaqan moo xam jaay na ko moo xam jaayu ko ko comme ngoro ga amul rek kon de koy comme say say ba amul rek kon de koy delloo li mu ko joxe woon comme premier cadeau wala boog may bu jëkk mu ne ndax lan comme ni ma ko wax ci ginnaaw mu ne ndaxte boobu boobule maye dañ koo defoon pour sëy gi mën a mat comme sëy gi amul nag mu ne kon de ko koy delloo moo xam mu ngak moom moo xam da koo jaay na te su booba tam bu fekkee ne koo jaay sax da ko ne ko koy fay loolu moo di li nga xamante ne moo di gis-gisu imaam Shafii amma nag imaam Malik moom def ne dañuy xool deltu ginnaaw gi ci ngoro gi ci kan la amee imaam Malik def ne dañuy xool ci kan moo dellu ginnaaw ci ngoro li ngoro gi bu dee ku jigéen ki moom moo dellu gannaaw man su boobaa comme su boobaa kon lépp luñ ko joxoon comme premier cadeau wala may bu njëkk da koy delloo lépp moo xam jaayoon na ko moo xam jaayu ko woon mu ne nag am maanaam bu fekkante ne deltu ginnaaw gi ci ku góor ki la su boobaa kon dafay perte li nga xamante ne moom la joxee woon ndaxte moom moo ci génn comme kon lim lim maye woon da koy perte loolu moo di li nga xamante ne moo di eh, gis-gisu imam Malik ci wàllu woowu waye nak mam malik mu tek ci nak ne xana rek bu fekkente ne rew mi ñi nek dañu am dañu tegon ben aada sen charte aada rew modi kep képp ku joxe premier cadeau ci sey mo xam sey gi mat mu baña mat perte nga sa alal manan doot amo sañ-sañ del del ki lajat ko lool bu fekkee lool mom moy moy aada rew ma su boobaa kon man nañu wuyel li nga xamantene ne modi aada bi ñi bi fa nek mu ne ndax lan mu ndax ci walu wi amul benn nas boo xamante ne root na ca bu wér maanaam amul benn texte boo xamante ne dafa rot ci wàllu wi ne e, képp ku joxe dara ci te ngoro tax amoon sañ-sañ delloo ko wala dañ ko war a delloo wala dañ ko dañ ko war a delloo bu fekkee ne deltu gën a am na su boobaa nag kon e, dañ koy jàppee ne ci bi nga xamante ne moom la waarewu nekk bu fekkente ne seen seen aada mooy bu deltu gën amee da ngay fay su boobaa dañuy fay bu fekkee na seen aada mooy da ngay bàyyi li nga xamante ne moom nga joxe woon perte nga ko mu ne nañ wéyal loolu mu ne ndax lan mu ne maqaatiul xuquuq inda shurut mu ne xaq yaa ngi jeexee fi nga xamante ne fi ngeen sarte woon waaye daal ala kulli xaal comme ñi ëpp ci eh, waa réew mi li ñuy attewoo moo di mazhabu malik yi ngiiru malik la attewoo ngiiru malik ci wàllu woowu def ne lii li mu njëkk a wax mooy te boobu la ñu bëri wax ne jàpp ne fukka xaw yu bëri ne moo gën a wér mu ne deltu ginnaaw gi bu fekkente ne ci côté ko góor ki la mu ne kon na ko leer ne kon li mu joxe woon perte na ko waru koo laaj amaa nag bu fekkente ne ku jigéen ki moom moo dellu ginnaaw mu ne su boobaa kon eh, li mu li ko joxoon yëpp da koy delloo ko góor ki kon mbokk yi tey lii moo nekkoon waxtaan wi incha allah bu ñu ñëwaatee. bi léegi rek ñu gën a sura ci gën a dugg ci bunt boobu incha gën ko yaatal ñu gërëm di sant caméraman yi Sidia Sané ak technicien yi di leen ñaanal ndaxte bu waxtaan bi leeral rek ci ñoom la ñoom ñoo ñuy wone ba àdduna bi mu ñëw gis mbokk yi kon ba beneen ajjuma incha allahu ci waxtu wi wasalaamu aleykum ورحمه الله وبركاته